mbokk yi nag ñu ngi dem directement seeti ki nga xam ne mooy Ablaye wadd ba mu waxee li muy wax ci forsam tey jàkkaarloo nag journaliste bi fas yéene yëkkati ay kàddu tontu bu ñëwee Dakar nan lay campagner parce que ñu bëri ñu ngi ciy am xel ñaar ndax Ablaye day campagne war a day ànd ak gune yi rek war a ànd ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi pour mën a fii xeex mën a am ay député nekk ci assemblée nationale jiite ko objectif Ablaye Wade ma ngay jàkkaarloo ka nga xam ne moom mooy euh, journaliste yi question yi di jóg di laaj ci Ablaye Wade nan la nar a ñëwee Sénégal góor gi nag ña ngi koy teeru ca place ba nga xam ne mooy place bii nga xam ne fa la journaliste yi nekk ñu fas yéene laaj ay question Ablaye Wade dañuy dem seeti. góor jërëjëf jërëjëf jërëjëf dañ naan coono baxane du fekke coono waaye marakis du fekke coono borom su ko defee gërëm naa leen tey nag journaliste yi ñoo woo pour laaj ma maanaam nu ma fas yéene doxalee ci campagne bi loolu nag warut a jaaxal kenn ndax sànni jàmbara buñ ko waxee mooy daw safar gis ngeen ma télévision du benn yoon du ñaari yoon ma koy daw Macky Sall ñaari yoon lañ ko mos a wane te dem na Màkka lu ëpp ñaari yoon bu njëkk bi mu ngi soog def na ko bi mu toogaatee mënu ko te ba tey dama koy def euh, bu dee kattan gi mu ngi fi kon ni ma ko waxee laaj bi la ñuy xaar. ñu jëm ci tontu yi su ko defee. ñu ngi lay nuyu bu baax monsieur le président Abdoulaye. dégguma la jëlal micro bi. waa ma ne ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw. waa waaw. kontaan ci teew bi nga teew fii. bi ma waajee pour ñëw. ah bi ma waajee pour ñëw. waaw bi nga waajee pour ñëw. waaw léegi ñu lay laaj. waaw bu fekkee da nga wër Sénégal naka nga fas yéenee jàkkaarloo ak euh, président Macky Sall. tàccu leen ko sa jàkkaarloo bu njëkk ak moom. parce laaj bi dafa am solo nii ma nar a ñëwee mooy jël li ma moom man foo dem si Sénégal xam ne liggéey naa fa xam ne tey duma ko mbuboo pour ñu falaat ma man ñooma pour nekk président assemblée nationale xalaatuma ko soo gisee xalaatuma ko c'est parce que xam naa ne mënutuma ñëw nekk président waaye mun naa participer si dëkk loo xam ne mun na ko yokku su ko defee kattan gi nga xam ne am naa ko ak doole gi mu fi wax ji mën a tax ñu xàmmee suñu liste votel ma ñëpp xam nañ ko xam nga Ablaye Wade kenn dootu ko wone monsieur le journaliste vous savez que Ablaye Wade c'est pas quelqu'un qu'on présent ah oui tout le monde me reconnaît. Mm. su ma nekkee ci tête de liste bi dañuy xam ne kii mooy keetu góor gi. waaw dañuy seetlu ne ku nekk président assemblée nationale su président tuxoo mbaa mu tukki mbaam maari day taali dara dal ko yow yaay nekk njiitu réew ma. waaw ah. ñuy xalaat ne boo gañee liste yi ba nekk majoritaire à l'assemblée nationale. Mm-hmm. bu président tukkee. mbaa ñaanuñu ko yàlla dara dal ko yaa nar a nekkaat président Sénégal est-ce que yaa ngi calculer loolu boo nekkaatee président Sénégal ban comportement ngay comporté wu ah xam nga loi bi moo ko wax moo ne bu président feebaree ah. yaay doon président premier ministre du ko nekk ah. ndax premier ministre gouvernement moo koy fal léegi boo nekkee président ki ci topp mooy président assemblée nationale su feebaree may doon président bu tukkee tukki bu yàgg uh-huh. maanaam maari day taane ñu évalué évalué ko ah maanaam ku dul entraîné topp sa bànneexu biir rek ñu évacué la uh-huh. maay nekk président ba ba ngay wér bu yàlla namee li mu bëgg nag uh-huh. maari day taane waaye bu yàlla namee li mu bëgg maari taane kër yéen a nit waaye boobaa amul lu may tee doon président kenn kenn yéenewu ko ko kenn nag waaw kenn yéenewu ko kenn waaye bu ko yàlla dogalee moom yàlla dogal Ablaye nekkaat ci bopp réew mi rek waaw loolu la. monsieur le président. waaw. sama dernière question. waaw mooy su fekkee da nekk. président Sénégal. waaw maanaam comme ni ñu hypothèse bi ñu wax nii. parce que dañu ne. limite d'âge bi déjà yow dépassé nga ko ci ay at. mais lan lan nga war a mën a apporter waat Sénégal yow en tant que euh, monsieur Abdoulaye Wade lan nga mën a apporter waat Sénégal loo xam ne defoo ko fi woon lan nga fi war a defaat yan projet nga fi war a defaat lan nga war a mën a promettre Sénégalais yi ci campagne législative bi ba ñu voté la lan nga leen war a mën a dikk lu tax ñu voté la lan. li may def mooy. delloo. buum ca mbooy mbooy ba xam nga ne Ablaye walis Ablaye sutura Ablaye xaalis Ablaye social Ablaye libéral li ma namoon te xam ko waroon ko def yëpp dama koy eggali ndax man sama yéene mooy fexoon ba sénégalais yi di mën a lekk kilo ceeb fukk ak ñaar man bu la neexee campagne ñu ma de waaye xam nga lu tax ma yërëm jigéenu senegal man sénégalais yërëmu ma ko bu góor yërëmu ma ko ah. sénégalais bu jigéen laa yërëm ndax ndax ndax ndax ay jàmbaar ngeen dama ci am dama ci bu naan maître Fatima Fall nekk ca Ndar di jàmbaar goo xam ne xaarul parti jox ko dara mooy yëkkati di dimbali parti ci liggéeyam ñooñu dañ leen war a taxaw maanaam sagal leen wane leen Sénégal xam leen waaye ñii nga xam ne ay njagamaar nañu xale yu jigéen ñi ne na leen waxante dëgg Macky Sall moo dem wakaam fii ne bés bu ma nekkee président yéen xale yu wakaam da ngeen am jëkkër wax na ko waroo ana am jëkkër man dama dama dama xam ne seen seen yaay doo leen wujjeeg moom rek waaye kon ma jël ci xale yi ah dama dama ne dama xam ne dama dama baax na baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam nga xam nga ba ma ca tolloon def naa ko Viviane laa takk te te te na nag weesu gu ma amul takkoo léegi li may def mooy bi ma defee enquête de proximité ci mairie Dakar yëpp ñu defal ma rapport bi indil ma ko dañ la ma si sa jamono ah. weer bu nekk dinañu signer deux cent cinquante certificats mariage ci ah, ah, sama jamono man bi ma nekkee président waaye bi ma jugee Sénégal ba tey nee nañu waa mairie yi ñoo wax de nee nañu six certificats mariage nañuy signer par weer waaw kon loolu mooy wane ne kan nguuru Macky Sall takkuñu ci kenn waaw moom nag comme moom comme que moom xam nga man man man tubaab laa tak tubaab ci xel tubaab ci yaram waaye nit ku ñuul ci comportement ak ci jëfin gis nga Viviane dama leen di wax loo xam ne tey sax du waxu télé damay wax dëgg tey mus naa ñëw ne ma Ablaye ma woon naa mu ne ma nit day day bëgg mbokkam bëgg naa la yàlla dafa am nañu ñaari bant utal sénégalaise mus na ma ko wax nema ma utal nga utal sénégalaise temps yooyu temps yooyu sax euh, euh, euh, bëggoon naa ko waaye comme que moo ñëw wax ma ko sama yaram daw waaye Macky moom da cee toll da cee toll de de de ma Macky da cee toll te Marème war naa wujjee comme que takkul ko gune yi jigéen ñi bu Macky takkul ñaar bu ko woteel ndax xolol ma mun naa ba ñett Macky mun na ba ñett laaj ma lu pale bu mag bi nekk ci Dantec palais bi nekk Popenguine ah. ak këram gi nekk Fann Résidence bu yoree ñett ñooñu ah. mun naa yor Sénégal ndax Sénégal yor ko il faut nga yor lu diis de mais ah. benn cundum dafa woyof Macky ñaar lam am ak Marème te nag góor gu dëgër da am ñaar wala ñett man nag bañuma sax waaye jàkk ji jarul ñu am ñu waaw xam nga yéen nii ay ay ay ay ay ay ay moromu ne ay ay moromu Karim ngi ay moromu Karim ngeen kaay ma woon fii ma doon fi ne ndax yaa ngi nekk booy dañu koy selfie ah, envoyé ko Macky mu xam ne ah, comme que man boo moom bu mu ci tollee defu ko man mi ko dépassé maa koy def. selfie Macky neel selfie Macky demal keneen kaay. selfie Macky neel Macky selfie. Macky gaaw leen.